يلا يا رمان يا رحيم salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen ñaanal leen jàmm te di ko sàpp ci yéen bu rëy ba dikkatina mu di bés bi nga xam ne Serigne bu Gueye mi moo koy amalaat mu nekk di ci sant Serigne Saliou ne ko sant nga ko jara sant Serigne Abibou Gueye Baye Abdou Diouf mi nga xam ne fu mu taxawee ci tànt xel yëpp dem ci Baye jàngkat bu mag boobu di ko ñaanal yàlla yokki leeram taf ñu ci barke bu mag boobu nag ren mu daal di dëppoog le 11 mai bi ñu jëm incha allah amee fële en bi bu kay midi ci woo umma islamique bi bisu diine la bisu lislaam la bisu tamit sàkk lu baax nar caa sant jàmbaari lislaam jooju di Serigne Saliou Mbacke waaye tamit di ci fàttaliku sëriñam bu tedd boobu nga xam ne mooy Serigne Ahmadou Lumba Mbacke xabaar ci fàttaliku tamit way juróom wu tedd ci woo bépp jullit bépp taalibe bépp wattukatu alxuraan bépp jàngkatu xasida tamit ñi ngi lay woo ci bi képp koo xam ne yaa ngi wax asadu an la ilaha illallah wa asadu an muhammad rasulullah jàppal ne bis bi la sa bis la bu am am solo mu di jàng xasida ak bernde ak jaamu yàlla waxtaane fa tamit jëmm ju tedd ji nga xam ne mooy Serigne Saliou Mbacké jaar-jaaram doxinam a la programme ba di ba suba jot ci njàngum xasida ak sikrola ak tamit du ci sàkku teewaayu bépp jàngkatu xasida jàpp ne kat bis bi seen bis laa ngi noonu les onze mai